bi njiitu réew mi jëlee dogal daal di def bokk moomeel bu Kër ma saar ab département bu yees jëwrin ji nga xamante ni itam moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu njënd ak njaay daal di nay jóg takku ngir fexe ba bokk moomeel buy yees bi mën a bokk ci département yi nga xamante ni daañu leen seen ci kanam ci fànn boo mën a jël bu nekk lii de moo waral ki nga xamante ni moo di Aminata Assome Diatta daal di amal ñaari bés muy ajjuma ak samedi bii la nga xamante ni génn lu dul déglu askan wi xam ana lan la ñuy dund comme ay jafe-jafe waaye nag boole ci mën a xalaat ana lan mooy ëllëgu Kër Massar samedi yemoo ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin Aminata asome Diatta daal di woote mbooloo mu takku daal di koy wuyu si fi nga xamante ne nag moo di ci lycée zone de recasement bu Kër Massar mbooloo mi ko wuyu si woon yépp nag mu daal di leen jox kàddu déglu leen ngir xam ana yan jafe-jafe la ñu nekk di dund mu daal di jël bigam daal di bind xalaat waaye itam ñu waxtaanee fa li nga xamante ni moo di ëllëgu Kër saar mbooloo mu takk ñoo ko wuyu si woon ñu nemmeeku woon fa nag ñi nga xamante ni ñoo di délégué de quartier yi bàjjenu gox yi imaam yi ñi nga xamante ni sax ñoo bokk ci ASC yi ba ci sax ndongo yi nga xamante ni ñooy sàkku xam-xam ñoom ñëpp rek ñëwoon nañu daal di wuyu si ci biile daje bi nga xamante ni Aminata Assome Diatta doon na ko amal. waaw rafetlu nag torop si bi ndaxte euh, madame la ministre su wooyee bàjjenu gox yi duñ kaa yor ñëw wuyu ñu xamanteek moom ba léegi lépp lu muy def rek mu ngi ñu siy boole surtout nag lu ñu gën a neex si moom lu nga xam ne benn autorité mu su ko def si Kër ma Massar saa yu événement amee moom dafa wax ma mu yebal sax mais day taal otoom ànd ak stafam ñëw ba fu ñu fu ñu suñu siège daal jox ñu lu ñuy jox ça fait ans chaque année daf ñu indil sukkaru koor duñu koy jox sans compter nag mu ñuy recevoir ubbil ñu buntam nag toujours saa yuñ ko soxlaa euh, daf ñuy recevoir saa yuñ ko wooyee daf ñuy wuy lu jafe nag si si kilifa. ñu ngi xaar ci moom vraiment li nga xamante ne mooy lu ñu naqari suñu coono li nekk Kër Massar moom mu jéem ñu cee jàppale parce que en tant que jigéen daf koy vivre ak ñun xam na li jigéen yi nekkee ci biir Kër Massar en particulier et en général femmes yi. waaw bu naree neex bu baxee xeeñ koo xamante ne bu déggee dara ci yow jël dàllam otoom jël soldaalam jël otoom ñëw fekk si la lu mu am bokk kook yow yaakaar naa ne kooku bu amee lu bare bu booba yow doo des gannaaw. ndongo yi nga xamante ni ñooy yeewoo ci bokk moomeel bu Kër Massar ñoom itam daal di nañuy profité ci bés bi nga xamante ni am nañ ko jàkkaarloo ak ministre bi daal di koy wax jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom ndongo yi ñu ngi nekk di ko dund. ñun tey dañoo ñëwoon fii pour wax suñu problème parce que nous sommes les Euh, et nous n'avons pas assez de moyens. Nous sommes des élèves de la S et nous n'avons jamais vu des microscopes ou certains, certains instruments comme les béchers et autres. Et nous avons même pas, nous avons des, des laboratoires, mais nous n'avons pas de matériel, assez de matériel. Et ça nous cause euh, énormément de problèmes. Nous n'avons pas fait, nous ne faisons pas de pratique. Nous ne faisons pas de pratique. Et aussi, euh, c'est plus que difficile même de comprendre certaines leçons. C'est plus que difficile même de comprendre certaines leçons quand nous ne faisons pas de pratique. Nous faisons simplement les leçons et expliquer simplement. Et ça, ce n'est pas du tout compréhensible. Et nous sommes venus aujourd'hui pour présenter cette doléance. Et aussi, franchement dans notre classe xet bi non c'est tellement suffocant c'est suffocant suffocant parce que yow xamoon ndax élèves nous asthme wala ñu am problème kii poumon wala genre yooyu c' est difficile c' est vraiment daf ñoo daf ñi nga xamante ni itam ñoo di ay délégué de quartier yu nekk ci bokk moomeel bu Kër Massar di rafetlu bés yi bi nga xamante ni teewe nañ ko tey ndaxte kat li ñu jàpp mooy que ni daal ngir nga mën a daal di defar il faut nga xam li nga xamante ni moo di ay jafe-jafe lii moo tax ñoom itam ñuy boole di sant bu baax jëwriñ ji nga xamante ni moo yore lépp lu jëm ci wàllu njënd ak njaay di Aminata asom Diatta

defal nañu ko bilan général boo nga xam ne bi lépp lu luy luy luy feebar ci moom rek xam nañu ko donc kon ñi ngi xaar les futurs maires ñi ñëw nga xam ne ñoom buñ ñëwee ñoom ñoo war a faj malaat boobu nga xam ne mooy feebaru Kër Massar ñoom ñu taxaw ba lépp loo xam ne mooy jafe-jafe ci ci Kër Massar ñu mën ko ñu mën ko saafara ku bëgg a defar foog nga bàyyi xel délégué de quartier yooyu loolu moo tax moom mu mu doxalee ko noonu woo délégué de quartier yi woo euh, bàjjonu gox yi woo responsable yëpp ñu ñëw

bi mu daaw ak daaw jéeg yëpp bépp jafe-jafe boo xam ne mi ngi woon ci délégué de quartier yi muy ci nawet bi muy ci tabaski yi ak su euh, ci ci koor gi kenn ku ne dem na ba sa kër malgré pandemi bi même bu duggul duggul it taxaw na ca bunt ba saafoon teg yow xamal la ni yéen a fi nekk waaw boobu ba léegi nag noonu la ko jàppoo boobu ba léegi noonu la ko jàppoo te vraiment euh, man bi passé يوم بس ما صار فلان توك نوختان نيو خمني مسلم مسلم جيس أوتوريتي بوما توغل بنيو سما كارتي وقت ما لعب سما بيركر أوتوريتي بنيو سما بيرك سما بير كارتي لعبه وقت ما لعب سما بيركر مسلم جيس مملن يوم بس ما صار توك تاين دك بده في لي نمي وانا موي مام دفن جو كر مسار خمني كر مسار دفع فبر كر مسار بيم فبره مم جهنم يقرب بنا نو analyses def la rajo def nañ ñu rajo def nañ analyse résultat yi moom lañ ko moom lañ ko doon indil tey léegi nag li ci des ci moom la des ba xam ndax dañuy dañuy bind daal ordonnance ah bu ñu faj définitivement a ah, moom la ñuy déglu ñu daal dañoo feebar Keur Massar feebar def nañ analise def nañu rajo rajo yi lañ ko doon andil defal nañ ko lépp bilan baa ngi noonu madame le ministre bilan baa ngi noonu moom lañ la jox tey ñu ngi lay xaar nag. nga faj ñu ñu wér waaw. koo xalaate ak ni ma ko gisee am nañ ci yaakaar euh, doomu aadama yaakaar rek la kon yaakaar boobu yàlla bu ko yàlla tas euh, wax dëgg yàlla bi mu ñëwee ak bi biñ ko xamee ak léegi ñun weeru koor wu jot danañu andil suukaru koor délégué ñun délégué de quartier weeru koor wu jot danañu andil suukaru koor kenn ku ne danga daw taam sa buntu kër jox la suukaru koor ñaari bés yi nga xamante ni nag Aminata Assome Diatta woote woon na ko ngir déglu nit ñi xam jafe-jafe yi lan la waaye itam xalaataale ana lan mooy ëllëgu Kër ma Massar mu nekk loo xamante ni nag bulet la muy am fii ci bokk moomeel bu Kër ma Massar bëriwul tamit ba tey lu ñu koy gis ci Sénégal wërngal këpp mu nekk nag bés boo xamante ni ñi yeewoo ci bile bokk moomeel bu Kër ma Massar rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax